الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه وسلم تسليما عونك يا معين وبك نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ñoo yekkati aynuyoyu sall eh, di ko jëmale bépp julit di ko jëmale bépp taalibi ci weer wu tedd wii eh, di ci ndokkeel ñëpp nag di ñaan lépp loo xamee ne joxe nañ ko ci ay jaamu yàlla suñu boroom nangul ñu ko te may ñu kàttan ba lim ci santaane lépp ñu def ko na mu ko bëggee di ñaan itam bis bii nga xamee ne moom la waajal lépp luñ ci def ci ay jaamu yàlla suñ borom nangu ko jotale ko soxna may munatu mbàkke ak soxna maam Bousso Bali mbàkke ñi nga xamee ne ñoo doon soxna may mi nga xamee ne moo sos bis bi te liñ ci organiser ci ay waxtaan dafa nekk euh, prolongement ci ay ak li liggéeyam ndax soxna si ab jàngalekat la woon ab yarkat la woon suñ borom dafa wax ci alquran ne walladi baasa fi l ummiyina rasula minhum yatlu alayhim wa ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitab walxikma wa in kaanu min qabli la fi dalalin mubin nee na ma yónni ci yéen ab yonant ana la tax ma yónni ko ngir mu jàngal leen ngir mu jàngal leen alquran waaye jàngal leen xam-xam waaye ngir mu yar leen eh, def ci yéen ay jikko yu rafet kon jàngale ak yare ci mission yonente bi sallallahu alayhi wa ci la bokkoon waaye soxna si itam loolu moo nekkoon liggéeyam eh, li mu nekk ci àdduna yépp kon ñi ngi ñaan eh, suñ borom nangu jataayu tedd yi te jotale ko ci te njaboot gi mu fi bàyyi itam mu teg ci loxo ni ni ko sunu ustaas bi waxe rek seigne Moustapha jattara ganelu laylu qadr suñu borom moko magal ci alquran mo wax ne inna anzalnahu fi laylatin mubarak. man ma al alquran ci guddi go xamee ne dama ci def barke barke nak moy lépp loo def ci guddi gi ci ay jaamu yàlla suñ borom daf la koy fulal waaye lépp loo xamee ne def nga ko ci ay moy yàlla moom it euh, ful moy ga ni ko Cheikhul Xadim daan waxe rek mooy yàlla jamono jépp la bone waaye rawatina weeru koor waaye jaamu yàlla jamono yëpp la baaxe waaye rawatina weeru koor ndax mooy weer wi nga xamee ne suñ boroom def ko barkeel te suñu boroom dafa bokk ci yërmandeem ak ngëneelam buy jëfalanteek ñun ci sunuy ñaawteef ak maandoom lay jëfalante ñun ak ci sunuy ñaawteef waaye suñu hasanat ak suñu jëf yu baax bu ci ak ñun ci li jëflante ak ñun motax mu wax ci alcorane ku def lu baax dina la fay ba mat fukk man jaa abil hasanati falahu ashru amthaliha ومن جاء بسيئة فلا يجزى fala مثلها illa waye fukk bobu man man nako upp ndax bi mi wax limi fay ñi nga xamé ne dañuy joxe seen alal ci yoonu yàlla ci yoonu l'islam nee na da leen koy fulal ba mat juróom-ñaar témèr مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة miatu xabba wallahu yudaifu ma yasha nee na ñi nga xamee ne danay joxe seen alal ci yoonu yàlla dama leen koy fulal ba mat juróom-ñaari téeméer ni may barkele mbay noonu lay barkele ku joxe sa alal ci yoonu lislaam waaye ful googu itam mën naa dem ba kenn du xam fu mu yem ndax eh, suñu borom ci jëmmam mi ngi wax ne innama yuwaffa saabiruuna ajrahum bi xayri xisaab nee na ñi nga xamee ne ay muñ muñkat lan bu ma leen di fay dama koy jóor duma ko compter aju ci ab lim kon day wane muñ euh, ngëneel lim am ci lislaam waaye koor itam noonu la toll ci suñu boroom ndax euh, yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne ci xadis boo xamee ne xadisul qudsi la nee yàlla dafa wax ne asawmu lii wa ana ajzi bihi dafa jël koor euh, féetale ko boppam nee na man euh, maa féetewoo koor kon maa koy fayal sama bopp suñu borom nag ku ne xam na ne euh, ci ngëneelam ak yërmandeem ak ci tawbam buy fay fay googu amut amut yamukaay kon loolu bokk na ci bokk na ci ngëneelul weer wi ngir weeru koor wi bokk na ci ngëneelul weeru koor wi itam eh, dafa bokk ci ponki lislaam mooy eh, ñeenteelu ponk ci lislaam ndax mën noonu wax ne lislaam eh, ab néeg la néeg nag ku ne xam na ne day laaj fondement waaye laaj ay ay poto laaj seenaas laaj ay birig waaye dafa am loo xamee ne ci lislaam dafa taxaw taxawaayu ay poto ay keno loolu nag koor def cee bokk bokk na ci ngëneelul koor ni ko oustaz Serigne Moustapha waxe ci leen wàcc alquran إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر لأن ما واتي كور ما واتي القرآن تيقودك ليلة القدر لأن ليلة القدر موغن جني قدي دل واحد فنين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان نين ويرو كور ويغا خامي ني تي لن واتي القران تي القران موي نجوب جيغا خامي ني موي موي ليرال لو نيك يون واتي غنا جوب القران مو لاكاي ليرال mo xam lu aju ci pass pass la wala lu aju ci euh, jaamu yalla la wala lu aju ci euh, adduna la wala lu aju ci àllaaxira la inna haada al qur'ana yahdi lillati hiya aqwam suñ borom def ne alquran mooy lu nekk rek moo lay wan yoon wa ci gën a jub yoon wa ci gën a baax ci li aju ci dundug doomu aadama yépp kon alquran mooy dellu mooy dellukaayu bépp jullit ngëneelul weer wi nag li ko sabab mooy alxuraan bi ci wàcc ndax ku ne am xam na ne alxuraan euh, du mbindeef alxuraan waxi suñ borom la kon melo euh, melow suñu borom la loolu moo loon euh, sëriñ Touba teg ko foo xamee ne tegu fa laneen bokk na ci li nga xamee ne mooy moom la yàlla jagleel sëriñ Touba ci weeru koor sëñ Mouhamed Lamine Diop na wax ne ne ci weeru koor ci la sëriñ Touba njëkk gise yonent bi jëhran ci weeru koor ci la sëriñ Touba njëkk gise yonent bi ci lu dul ay nelaw maanaam gis ko yaqazatan waaye itam al wirdul maxuud ci weeru koor la ko yonenti yonent bi sallallahu alayhi wa jox loolu moo waral sëriñ Touba yemale wutoon ak alxuraan dara ne ko sëriñ Moustapha waxe waaye itam yem ak weeru koor ak dara xasida gi ci bind eh, ngir di ko eh, tatagal ak di ko teeru ak di wax ay ngëneelam ak lu mu ëmb ci aw yiw euh, ku ci nekk ci ñun euh, dégg nga ko yaa xayra dayfin ata bil bishri wa ana li tax nga gën ci danga nga ëndaale ay xéwal ëndaale aw yiw ana gan googu luñ koy terale liñ koy tarale mooy ay jaamu yàlla ak ak njub ak lu baax ndax ni ma ko waxe loo ci def ci aw yiw suñ borom moo lay fayal boppam te tabuk suñ boroom ak yërmaaneem moom lay jëfandikoo bu lay fay kon li muy fayee nit ci weeru koor eh, dara kenn xamul num toll bokk na ci ngëneelu weeru koor itam bu weer wi duggee dañuy euh, tëj bunti sawara yi waaye ubbi bunti àjjana yi loolu itam euh, sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax ba pare jëng seytaane kon loolu lépp euh, moo taxoon Euh, moo taxoon euh, euh, sunu sëriñ Cheikhuna Ahmadul Xadim yemale wutoon ak dara bu weeru koor ñëwee nee na mbégte mi daan am mbégte mi daan am weeru koor nee na daawu ko am lu dul ci weeru koor bu bu ñëwee day yokk jàngale yi daan jàngal taalibe yi di leen fàttali ngëneelul weer wi ak li weer wi ëmb ci aw yiw bokk na ci ngëneel li moomit ni ko Cheikh Moustapha waxe euh, laylatul qadr laylatul qadr euh, xayrun min alfi shahr moo gën junni weer junniy weer mooy buñ ko bu ma juumut juróom-ñetti fukki at ak lu topp ak ñett kon nga xamee ne euh, barkeb laylatul xadar euh, kenn xamut nu mu toll loolu moo yooyu yëpp daje ci weeru koor ak màggaayam te mu tibbee ko ci alquran ci la wàcc loolu moo taxoon euh, ak wàccuwaay bi ko euh, suñu sang ba na Ahmadul Xadim jox loolu moo taxoon soxna si tànn ko ngir di ko dundal di di ko dundal di dundal Alquran ndax Sëriñ Tuba euh, ku xam ne القرآن مدون لبهم كنز الكتاب والحديث والأدب لا جمع فضة ولا جمع ذهب نينا سما سما ألال سما تريزور موي القرآن أكسنة كن سرين توبا موم القرآن موي ألالم نينا لين كوي وبالكتاب والحديث يثبت لا بذهب موروثي بخدمة الكتاب والحديث يثبت لا بذهب موروثي نينا لين كوي دون لين خمينا موم لين كوي دون بفي موي لجيال القرآن أك السنه ndax euh, ku nekk ci ñun lan koy donn mooy alal Serigne Touba moom moom alxuraan la defoon alalam ak liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa kon lum am rek ci ñaar yooyee la ko amee ci alxuraan ak ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa ci di wane sunnaam. wane ay jikkoom yu rafet waaye itam di julli ci moom salaatu sitta bi madxe sitta tatihi batta ma tisaa'i nee na at mi dama ko xaaj ñaari xaaj xaaj bu njëkk bi dama ci julli yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xaajub ñaareel bi ma ci tagg yonent bi sallallahu alaihi wasallam waye waaye ànd ak di ko roy di ko kon lolu lu am solo la ndax eh, yonent bi sallallahu alaihi wasallam moy model bi nga xamé né mom la suñu borom andi ngir jullit ñepp def ko kay qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid suñu borom daf ko digal mu wax julit ñi ne man kat mbindeef laa waaye du mu mbindeefum kese mbindeef moo xamee ne suñu borom dafa wàcc ci man alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam màggaaya maazamatu rasul sallallahu alayhi wa sallam mën nañu wax ne ci loolu lay dellu maanaam mbindeef la day am ay bëgg-bëgg ami yëg-yëg ami bànneex ami jafe-jafe yi nii ja yi nit ñi jaf jànkonteel yëpp ci àdduna waaye àndak loolu lépp dafa nekkoon ku tegu ci siraatal mustaqim dafa nekkoon ku jub koo xamee ne li e, li muy bari ay bànneex yooyu yëpp loolu taxutoon mu jàdd yoon wi nga xamee ne moom la ko e, suñu borom trasel sallallahu alayhi wa sallam boroom kër la woon jaar na ci ab liggéeykat la woon kaana raayan wala nekkoon ku daan commerce boroom kër la woon lu ko jiitu haasib eh, eh, la woon nekk koo xamee ne amutoon soxna mu nekk père de famille waaye foofu loolu moo tax mu nekk exemple waaye fi mu jaar fépp kenn mënu ko kenn mënu ko wax lu ñaaw mësu koo jëf mësu koo wax